man yàlla maa ngi bàyyi xel lépp lu may di def mbokk yi yàlla moom subhanahu wa taala mu ngi wax ci alquran ni inna iddata shuhuri inda allah na ashara shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف يعلمني لي لي بير لما مريك تولوتي فكر نعم ngir ñu mën a wax ni matal na leen tax li ko dalee ni yàlla sàkk asamaan ak suuf ak nagari si ci loolu la ñuy nattee at fukki weer ak ñaar yàlla dañu xamal nag ci fukki weer ak ñaar yooyu am na ci ñeent yoo xamante ni moom la ñuy wax ashhurul hurum muy weer yàlla xam na mbokk yi ak lii ñu nekkoon këru nattu la këru imtixaan la te ni bis yi di dem semaine yi di dem weer yi di dem ban naan mat na at lan mu war a bay loo xam mooy ni àdduna bi la dund buy jeex ashhur këru yi muy fukki weer yi muy ñeenti weer yi nga xamante ni yàlla xamal bii ñu nekk nii mooy li ci dëkk mooy shahrullahi muharram li tax ñu tàmbalee ko suñu at bii nga xamante ni mooy at jullit bi mooy Umar ibn Xattaab ci jamono ci la sàkk woon ngir am calendrier weer wi nag li taxoon mu tànn ko mooy lii di arkaanul islaami xams bonk islaami juróom seede julli natt asaka woo aji mag weer bu ñu génn ci zul hijja moo nekkoon weer bi nga xamante ni ci la yàlla farataal mu aj kon moom mooy tëj juróomeel bonk islam mu ne kon mën nañoo tàmbalee nag ci weer bii nga xamante ni moo sës ci weer bee suy weer bu njëkk ci at ginnaaw bi nga xamante ni moom Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu ci la sàkk woon ni ngir ñu am calendrier boobu ñu am ak suñ koy tàmbalee ci la jëloon lii di gàddaay bi jullit bi bàyyi ko Makkatal Mukarrama mu nekkoon bala du sëb toxu ci Madinatu Munawwara nekkoon bala du tawhiid kon lii mooy li nga xamante ni moo sabab suñu calendrier bi suñu mbokk yi mu am na ci weer bi nga xamante ni mooy shahrullahi muharram ñu koy wax tamxarit bis boo xamante ni moom lañ mën a miin ñun ci ni ñu ngi suñu at bu bees fekk at bi dugg na ba pare bis boobu mooy toll la ko Ashura Ashura wàññi asra mooy fukkeelu fan ci weer bii di weeru tamxarit loolu tamit xew boobu ci amoon bi ñu yëgtee ci xutba bi mooy najaatu Musa alayhi salaam wa qawmuhu wa hilaalu wa ihlaali fir'awni wa jumuudah mooy ci bis boobu di yowmu Ashura ci la yàlla musala woon yonent yàlla Musa alayhi salaam ci noonu ko kon boobu nekkoon fir'awna ak les soldats ñu ñu di xadiisu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qadima al-madina fa wajada al-yahud siyaman yawma ashura fa qala lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma hada al-yawm alladhi tasumun وقالوا هذا يوم عظيم أنزل الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منه فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم وقام مسيرا nii la ko Abdullah ibn Abbas yàlla yàlla gërëm ko moom ak wéjuram indee xadis bi ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu jugee Makka dem Madina kon gàddaay jóge Makka dem Madina dafa fekk woon nga dina ko mën na war a yëpp yëpp a nekkoon di woor bis bii di yëw mu Ashura mu laajte moom alayhi salaatu wasalaam lu tax ngeen di woor bis bii ndax bokk du diine te ñoom ñu koy woor ñu ne ko bis bii de ci la yàlla musalee woon Muusa alayhi salaam ci Firawn Muusa doon ko woor moo tax ñu koy woor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gënu leen naa yey ci sama naataango Moussa boobu alayhi salaatu wa salaatu wa salaam di yonente yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy woor digal saxaaba yi di woor mbokk yi histoire boobu di histoire yonente yàlla Moussa ak Firaama lan ca jëlee rek lenn rek mooy Firaama ca la mu doon woote muy ab neen yàlla dafa nasaxal ci kaw dëgg li Moussa Rama wa jaala kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya mbokk yi li ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon digle ci lii di shahrullahi al-muharram ci Ashura koor moo tax moo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci beneen hadis bi ni afdalu siyaami ba'da Ramadan shahrullahi al-muharram mu ne koor li dem ginnaaw ramadan weer koor mu ne shahrullahi muharram mooy tamxarit kooru tamxarit mu ñëw wax ni wa siyaamu yawmu ashura woor na fukkeelu fan ahtasibu ala allah an yukaffira sanata allati qabla maa ngi am yaakaar yàlla mu fonk ci bàkkaar yi nga xamante ne defoon nañ ko ci am nee weesu te sax na Muhammad alayhi salatu wasalaam kooku yàlla na koy réalisé mbokk yi li nga xamante ni moom mooy Ashura dafa am ay maraaxil ay étapes yoo xamante ni da koo traversé laata ñuy wax Ashura su nit jullit ñi bis ñëpp mooy anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kaana yasuumu Ashura bi Makka wala yamuru annaasa bi siyaam moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam laata mu jógee Makka bi dem Madina daana woor bis boobu mais daaw digal saxaaba yi di woor daaw ko digal kooku mooy étape bu njëkk bi ñaareel étape bi mooy lammaa qadima Madina lammaa qadima Madina sallallahu alayhi wa sallam wajada al-yahuud yasuumuunahu fa saamahu wa amara an-naas bi siyaam ba mu ñëwee fekk waa Madina di ko woor comme ni ñu ko waxee léegi moom dafa digle ñu wax ko li tax ñu koy woor mu digal saxaaba yi woor ko ndax gën ñu koo yee ñoom yahudi ci yonent yàlla Moussa moom alayhi salaatu salaam mu woor ko digal saxaaba yi woor muy ñaareel katam ñetteel bi mooy lama ko dama ma woon ak sanati taan bi bi ñu gàddaayee ñu may na ci atum ñaareel boobu yonent bi alayhi salaatu wa salaam fekk na ko mu war Ashura kon dafa nekkoon ci moom waajib ba mu digaloon ko saxaaba yi mu nekkoon waajib ci ñoom waaye ba ñu farataalee leeral koor nag la tuub ci waajib boobu moom moom sihru mooy muy Ashura farata bi nekk weeru koor Ashura bi dem nekk ci mustahab marxalatu raabi'a mooy al amru bi muxaalafati al-yahuud fi siyaami Ashura mooy ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yëpp yar lépp leen jàngal ci seen melokaan ak seen wàllu jaamu yàlla mooy xaalifu yahuud wa nasaara wuute leen ak yahuud yeeg nasaraani seen i doxal seen i feet ñoom seen i feet bokk ñu ci seen i tasawufaat ñoom ñoom ñoom ñoo ko moom yéen na ngeen des ci li ngeen moom. moo tax comme bis bii di fukkeelu fan bi yahuud yi ñu ngi koy woor te moom mu digle julli ni ñu koy woor kon day mel ni ñoo bokk benn ci ñuy woor ngir mu am nag différence mu wute moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ko saxaaba yi laajee laaj ko mu leen kon man insha allah moom fi demal si fekkee dinaa war taasuwa mooy nawlal fukki kon wuute bi ñuy wuute ak ñoom ci koor gi mooy woor nawlal fukki boole ko dixième jour loolu ci ñu wuute ak li nga xam ne mooy yëpp ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ne ko jàngale ñu ne ko saxaaba أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن كما نزلت إلى الله سبحانه وتعالى moom mi nga xamante ni moo ñu xéewal ñu fekk at bu bees bi yàlla at bi mu bu bees doon at naataale suñu lépp lu ñu amoon ci jàppale yàlla ñu fekk ginnaaw yàlla ñu defal lii nga xamante ni moom lañ dëngoon muy at bu réussir mbokk yi ana lan la ab jullit loolu la war a jàngee ci lii nga xamante ni mooy at bu bees li ci jëkk li ci jullit bi war a jëlee ginnaaw bi nga xamante ni ñun doomu aadama mën nga ni man maa ngi dem àdduna ane sàngal waaye bis ba ngay faatu ma xam ko la ngay natt nag ci sa dund mooy ba ma demee àdduna ak ba may faatu diggante boobu mooy sama def gàtt ci lañ may xisaab la mooy gàtt kon la war ci ab jullit mooy la Umar ibn Xattaab waxoon ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasab na ngeen xisaab seen bopp laataa xisaabu ak bëri bi kon la diinu ci ab jullit bu at mi jeexee mooy mu xisaabaat boppam xoolaat jëf yu baax yi nga xamante ne defoon na ko ci at yee weesu mu ñaan yàlla mu noonu fu mu doon lam ca defoon ci ay ñaawteef mu tudd ko yàlla te bañ koo defati ñaareel bi ci li ab jullit war a jàng ci at mu bees mooy qiimatul waqt valeur bu temps mbokk yi lii di bokk ci lii ñi nekk ci bàmmeel di rëccu mooy bu leen yàlla dellu si waatoon ci kaw suuf loolu la ñuy ñaan yàlla mu dellu si waatoon ci kaw suuf rek ñu def lenn ci lu baax ci leen wees wax fekk boobu loolu moom fekk na la ginnaaw ndax bi nga nekkee nii jamono ji nga xamante yaa ngi sa bakkan yaa ngi sa mbir lu ne mën koo defal sa bopp mun nga profité ci def moo ko def ci doon jaamu yàlla voilà ñàkk temps bi jot ngay dem ba ci biir bàmmeel di ko wécc wala yow ak yaa ngi ci ngay ko wécc dafa bokk ci laaj yi nga xamante ne alayhi salaatu salaam nee na lan tazula qadama abdin yawma al-qiyama hatta yusala an arba nee na doomu aadama du sëpp jéego yawma al-qiyama dañu def koo laaj ñeenti laaj bokkoon na ci laaj yooyu sa dund bi nga nekkoon ci at ci lan ko passé kon at mi buy jeex war ngaa xoolal bu baax sa temps ci nan nga ko war a jeexale ñetteel bi ci li ak julli borom ay xel ci bu at di jeex mooy ak tawbatal nasuux mooy di tuub dellu ci yàlla mbokk yi yàlla mu ne yow bi nga xamante ne da ngaa duuru ci ay bàkkaar ak njombote boo mën a def nga jënd sa sa xel bi ni ah man mi baa ji su ma ci deewee dina ci xamal ni yow ak ngëm yàlla des na ko sa xol kon na nga gaaw a def bul jàpp ne mukk yàlla du la jébbale ci say bàkkaar waaye da nga tuub tawbatan nasuuhan lahu mooy an nadamu ala ma faat wa niyatu an laa yamuuda fi ma xaqami mooy nga ni lii ma defoon mu tudd bàkkaar nga am yéene dootuma ko defati mukk di des ci sama dund loolu mooy ak tawbatan nasuuh ñeenteel bi ci li nga xamante ni ab jullit war na koo jàng ci at muy jeex mooy hijratul maasi ak dàddaay ndox ko defee na nga dàddaay lépp loo xamante ni lu la daan wéral ak ñaaw jëf ndax rëcc gi moom fi muy wéral mooy li ma doon def mooy ñaaw jëf bu ma ko doon defee moo koy jógee ña ma ko doon defandoo damay ne bàyyi damay xeexal sama bakkan bi ndax jihaad bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni jihaad bu ndaw bi de jeex na mooy jihaad ak ay jaasa jeex na jihaad bu mag ba ci des ñu ne ko ko defee ak ma tukki ma jihaad bu jaas bu dee tam ban jihaad moo ci defal mu ci daal di mas xel sama kan nga gis ne mbokk yi fiir nga xamante ni iblis waxoon na ko ni yow yàlla kii di aadama mi ma jëmle ci donkaas yi ñi ma nekkoon maa ngi lay ñaan nga bàyyi ma ma dund ba ba yow nag yàlla ci kanam ba ba adduna bi jeex yàlla may taxaw iblis day dund ba bis bu mucc ci kaw suuf waaye dafa am bis bu mu defoon ci jullit bi mu ne yàlla man dinaa ruuf nag ci yoon bi nga xam ne mooy sa siraatal mustaqim ba ñëpp ñoo xamante ni dañ ne dañ laa dañ laa gëm dinaa leen dikk day joor dikkee leen càmmoñ dikkee leen kanam dikkee leen ginnaaw dinaa fexe ba ñu bëri ci ñoom danañ jëm ñu yëpp ñu doxal suñu dëkk wala tey bi am suñu musaari mbokk yi foofu lañ toll ci jamono ci biir yi nga xam ne lii gis mu ko asaar ci kaw suuf ay caaxaan ak i foofu lu ne yoo xamante ne sa waxtu ak li mu seeree ci loolu ko fay jeexale wala xaaral ko ci naan ci naan mbokk yi ba tey ci li ak jullit war a jàngee ci ak jeex mooy taxdiir ak taxdiir lil jadid mooy jullit daf war a planifier dundam yaa ngi dugg ci année bu bees li nga weesu woon lan ca réccoo lan ca xool ci lu baax lan ko war a mën a planifier ci ay projet sa kanam ci wàllu jàng bu doon lu jàng lan ko war a planifier sa temps pour nga bokk ci ñi nga xam ne ñuy réussir ne bu dee ci wàllu liggéey nan nga war a participer ci ñi nga xamante ni sa dëkk wala sa réew yaa ngi dëkk ñu koy jëmale kanam ci sa biir famille nan ngay doon fexe ba doon ñi ngeen xamante ni ñooy ñuy jëriñ seen bopp jëriñ seen mbokk ak jullit dafa war a planifier di dundal man de fii laa doon nag ci njàng alquran xaw ma ci woon dara bu may def ay jukki sax damay def sama suuf rek daal di joxe la ci te mbokk yi am njàng lu wees yoon bi alayhi salaatu salaam quarante ans lañ ne def ci Coran yow nga am trente cinq ans naan jàng weesu na jàng lu wees ci def solo ba ci bàmmeel kon fi ma toll ci alquran karim ci ab yëreef am nan laa war a mën a def ba mën a fexe liir ci ak nii ma fexe ba lu ma gis rek dinaa ko gis ci alquran di ko liifam bu dee romboon naa ko lan lay fexe day du mokk kay lenn ci alquran karim ab jullit dafa war a planifier dundam mbokk yi mu bokk ba tey ci li ab jullit wala jeexale atam di ko bàyyi xel mooy tajdiid maa ñi nga xamante ni ñooy ñëw wër ci ñoom dong nga mën a jaamu yàlla say wajur ana lan la war a mën a profité ci ñoom ngir yokk samay balance yi samay dëkkandoo yi ma nekk ak ñi la jegale ana lan lay fexe ba ak day doxal sama diggante ak ñoom mu jëmmal ko li ma la xamale ak ñoom ma fexe gën ko war a tatal mbokk yi abi Hurayra radiyallahu anhu dañ koo fekk ci sakaratul mawt muy sukuraat muy jooy ñu ne ko yow Abu Bakr yow Abu Hurayra yow Abu Hurayra ana lan ngay jooy mu ne du àdduna bii de mën na rabay naa laajte subhanallah du àdduna bii li fi nekk ci ay poñat moom laay jooy wante li may jooy mooy tukki bu yàgg ba ma nar a dem nii boo faatoo xaar ba ngay xaar ci tukki boobu ak néew gi ma néew yóbbal subhanallah abu hurayra ki bokk ci nit topp li ñu mokkal ci xadis yonente bi salallahu alayhi wa sallam ngir takkoo gi mu takkoo woon ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam bokk ci saxaaba yi moom moo ñëw taxaw di wax yoon kon ana ñi nga xamante ni moom xamoon ba tey ci man ana xam ne yàlla yàlla def nekk dëgg dëgg jullit bokk yi yàlla defal ko nawet bi nga xamante ne moom la ñuy dund mu nekk nawet bu barkeel yàlla sàmm ñu sàmm suñu njaboot te li nga xamante ni mooy def baax teel si jub sàmm sàmm suñu njaboot sàmm suñu pas-pas ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الى صراط السبيل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى الصلاه والحمد لله